Vous voulez suivre des vidéos, des séries et des sketchs sénégalaises Abonnez-vous en masse sur votre chaîne YouTube Sangoguma TV. Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble. surtout ma blonde bi moom moom laay dina am soir d'accord ay waroon naa mën a teg kon nga xam ne lépp dëgg la. filaale sànnee si màggal bi boo ku sax doo ma xàmmee waaye xam nga li nekk ci kër gi kenn du la ko wax may ma jàmm may ma salaam moom na naa jël kor rek di ko sànni si bopp bi di mel ni meer boobu man gëw ma sax dina am jëkkër. jërëjëf fu nga fekk yaa ngi wax Yun, hindi. Yan. Ano ba si Puro? Magkakanan na nga siya. Takasang pa napaanggal din mo. Napaanggal si Magda. Lumide, buffet ko lang ton rek mu jaaxal. Fum ne mo kay bari ki de mo njaay. Mom di laaj fu ne dugal na ko fa rek pour pour pour lii ko ba mu set. Affaire bi du noonu papa. Affaire bi ndànk ndànk la. Sonn Mais moom nu mu ñoom daal problème estomac la ñu waxati. estomac waaw. te nag aay nañ ko café. na bàyyi café. médecin yi médecin yi waxuñu loolu de. dañ ma wàññi café gi. dootoo naan café. café aay nañ ko ko de bu ko joxati. médecin yi wax naa ñam tuuti rek naa ñam rek. café nga waaye aay ma ko waxuñu la loolu. <coughs> masa yow daal loolu nag ci bay bu mu naanti café waaw naa ko jëndal sax ma ko koy xaaral. bu koy naan waaw. waaw waaw. boo naanu si xaw looy nag. papa mais tey sa wér yaram bëgguñ bëgg yaa ngi nuyu sa kafe gi. baax na ku leen jaay ci biir. da da damay dal jël garab gi dinaa wax naan dem leen. yow lekk ceeb sa garab. dem dem na seen waxtu sa garab ba pare. yow. <laughs> du ma ko jaawantu nag. te nga noppaliku da ah. ni ma mel kafe. médecin yi ne ma dootoo naan café ah li na trop waaye <coughs> xaw ma li ba des <coughs> sama <coughs> la. wax laay laay faay la laay laay laay faay la laay faal. salaamaaleykum. salaamaaleykum. ah bay engagement. ah Fatou Diakhoum. Fatou Diakhoum xew. Ah, man ci la ne. waaw man ma rek man ci la faa yow xam nga yow la ma la wax. ndeysaan ay namante la. naka engagé wu. maa ngi ci yoon da ngay nga yoon yi. faw ngay ànd bu dal. dëgg la ndànk def ndànk ndànk. dëgg yoon yoon dafa yaatu. dëgg la nga da nga ciy def li nga mën rek bàyyi. dëgg la moom bu bëggee engagé nga mën lépp bu bëggee engagé wu lépp. kenn ku yoon rek. kenn ku wala la yóbbu. dëgg cant yi. ah ñu ngi cant yi bu baax a baax ñu moom ñu ngi cant yi ndax xam nga ñun moom seerafa rek li ñuy dund. dëgg la Fall yaa ngi sëq rek lu ah yow magal gi jub si ngay si daal démb ci guddi. laay tëdd bu guddi. mu mel ne mu mel ne sama xol bi dañ koy jàqar bi. mel ne dañ koy jàqar bi. da ngaa dalluwul rek engagement. waaw ah, ci la ma ci la xam naa boo moytuwul. waxtu waa ji eh, xam naa nag waa ji wu ci kàmb yi xam nga kàmb day ay fam. man naa ñetti kàmb sax. Ah. naa loolu. Ah. man daal bi ma demee bi ma daanalee ma xëy ànd ak sama doom ji maam Diarra. waaw bi ñu ba hôpital fekk fa marem bi tey marem mooy sama saas am marem ndeysaan baax la baax la ndey moom ku ma boole bi ma xoolee mhm. mu ne dama am problème mu estomac li mu ci gën a naqari mooy liñ ma aaye muy café café Touba giñ ma aaye dong ma métti estomac lu mu wutee café nan waxante dëgg faal nga voilà léegi. tey xam nga ne café sama yëngu damay xëy di naan cafetière loolu dong ma ci métti man ana estomac café loolu moom danaa danaa woo médecin bu ma jàkkaarloo nga ne ma Fall bàyyi café gi boobaa yow dana la koy nettali waaye dina ko wax kenn. mais yéen nag yéen moom murid gi da ngeen cee nekk nii rek. da ngeen a nekk nii ci murid gi rek. noonu laa war a def noonu laa war a def met na trop. yéen ma ay nga xam. mais yéen moom da ngeen ñàkk fayda. yéen xool xam ni. dalay fula ñëw ci yéen ñoom ay ay feeb feebar ñàkk fayda yooyu ay ay kafe kafe gi nga xam ne sooy jëf sëñ bi la woon sëñ bi ko fi indi Baye Fall. ñu wàcc barke bi ginnaaw Baye Fall. di sant sëñ bi bisimilah Cheikh Fall. ba kii Baye Fall. wuy ma wuy ma kafe gi Ndeye Fatou ñu ne fii ci rond point bi Ndeye Fatou xam moom ah, mooy ki may fii. waaw moom daal mooy jaay safar gi. sën woon man ak kafe. man ak kafe daal la koy safaree man ak kafe da koy safari daal. non non man la. mën a kafe gi yow rek. yow mii yaa naan mën a kafe gi. ma moo tax ma kii ko. bàyyi sax sangoon daal man a kafe la jaayante rek man. ci doole séeru la. xam nga fan la ñu naan kalaame yow mii dagg la waaye xam nga fan nga jëm ma ne Baye Fall ba defoon. de dem dem feebar dem hôpital ñu dem la séréngal kafe génn ñu xëy laaj man damaa topp cant yi rek. yow mii lu ma dal bëgg ma dimbali rek may ma ci ab kii rek xool xool dimbali ma rek nga yeesul ma ci ab kaas rek. dimbali ma rek fii ci kaas kafe gi ni may xëy na jar gi bari na trop dimbali ma rek <coughs> xam naa ne <coughs> ma ci jaayante ab kaas rek dina kii dimbali ma rek Fall. ma dimbali ma ma ci ab guux nag yow it nag <coughs> ah xool dimbali ma xool SMA bi kii na mais da may ni may forcé di wax ak yow sax du yoon dimbali ma Fall. bul tëj ah wuy ma Fall doo ma yeewee ci kafe gii ngir yàlla. Fall kaas kafe gi. dok dok ci naan comme que doon laa aaye café te man doo denc samay loxo café gi doo ci naan fal dalul dalul nga noppal sa bopp bàyyi café gi ba màggal gi jàll ba xam naa gis sa yaram wi ak tan loolu may ci café gi ma bàyyi fal doo ci naan te dëgg nga dalul damaa wopp fii ne kaaf bi boo ko jaayante woon fas ko naan rek léegi nga tàggu asma waaye comme que dañ la ko aaye in ma jaayante ko doo ci naan fal doo in ma jaayante ma jaayante ci kaasu café man xool man dama man damay bëgg a ñàkk fere sax xam na ma def wuy ma waaw léegi léegi wuy may wóor na seer rafaan génn sama wóor génnal sa kër ci biti. engagement man nga ma ne ma man man engagement man man bàyyi moor engagement cer na engagement maa bëgg engagé wu nga génn ci biti wala ma dal ci sa kaw. ma ne génn dëgg. waaw. Fane génnal bala ma laa yëy fii génnal. génnal. yow yow gërëm doo bàyyi faal yow doo bàyyi faal sax yow. yow ba ci bàyyi bokk yow bàyyi force yi. toogal fii di wax lu neex mais yow boo fii ci biti maa ngi yow cant yi booy génn ma yow kon bayfal bu ñuy bayfal bu ñuy tooñ yow ma wax yow bai musuma ci bayfal yow ngay wër bayfal la mat say tamit ñoom liñ def kenn xamoo kon nan maa ay café gi café gi tam xoolal ki bi mu café gi ni xet gi doon li ko la ilaha illallah fan jëm def demal mareem nga tegal ma cin lu mag ñi. danaa naan café ci nii wala ci naa. Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.